ba tey ñoo ngi seen plateau bi nga xam ne moom lañ leen di tey ci ajuma ji nga xam ne ñenn ñi tabaski nañu ko ni ma koy waxee muy déwénati leen ñu dalal fi nag une deuxième personnalité de l'État muy koo xamante ne bi membre la ci coalition benn Bokk Yaakaar nekk secrétaire général parti pour l'indépendance et le travail muy monsieur Amath Dansokho Amath Dansokho ñoo ngi lay nuyu bu baax di la baalu àq ci tabaski bi maa ngi leen fay yéen ñëpp di leen gërëm ku nekk sa tur ak sa sant ah nuyu waa Sénégal yëpp yëpp maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwul kenn jiital nuyoo bi sama xarit sama doom sama doom Macky Sall di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ndax nit lu amul wér amul ko jërëjëf baal leen ak baal naa yéen yàlla baal ñëpp ak euh, naka nga dundee tabaski ren bi eh, eh, ne nee naa torop ñoon ay saraxu le nañ lu euh, gis weer rek def naa def naa kii tabaski ma profité ma nuyu waa Kédougou si xara duroxo no a yaana duroxo koroxon baxane yaa ine banena sara yaa sara ya dunde ani ke ɓarini an habare ka mba jam jam hone ke haraga je woxoro ko mbee <laughs> eh, dëgg la monsieur Amath Dansokho gis nañu ne actualité politique bi jamono yi eh, ñu weesu muy eh, élection législative yi yëngatu woon na daanaka dégguñu sa kàddu lu bari ñu bëggoon a xam naka nga jàngatee ba lecture nga am ci actualité politique Sénégal yaram bi moo sutante woon waaye li tëdd yëpp maa ngi xalaat Sénégal bi ma ci gisee Ablaye Wade dama de wax docteur bi na ma bàyyi damay dem campagne mu ne déet Macky moo ma woon ne ma dans ne te ne vous déplacez pas laisse-moi je gère tout que gis nga benn yoon président Macky Sall dugg ci campagne il n'a même pas fait un petit pas ce que j'ai vu dans ces élections c'est des claires comme la ligne comme la laine. Asafula, même la lune n'est plus claire parce que a fait de tabac. Est claire comme de l'eau de soufre. Tu vois. Il y recours qui est par la Constitution. Cela prouve que les élections se sont bien passées. Pour contester élection yi da nga contester loo xamul waaw. Euh, dañu gis ne assemblée nationale bi muy treizième législature bi dañu constaté ne Abdoulaye Wade moo nar a nekk doyen d'âge bi. maanaam mooy ki nga xam ne mooy mag assemblée nationale ndax loolu day confirmer ne mageel gi nga doon wax ne moo ko mag wala moo ko mag ñenn ñi day mel day confirmer wu eh, eh, loolu du dara nga nekk doyen daal taxul nga nekk président assemblée loolu du tous loolu du dara Ablaye waru woon tax def campagne ñun ñëpp ñun ñëpp Ablaye moo ñu mag moo ñu mag kon loolu dafa am bopp war a gën loolu la la la pourquoi cette question pourquoi ngay poser question boobu loolu du actualité moo fi mag moo président loolu dafay tax ñu jox la dara wala dañu koy fay ah. Euh, ñu xam ne tamit ministre conseiller nga ñu buggoon a xam parti PIT fan la toll ak lan moo nar a nekk ambition politique ñu ngi toj dëkk bi parti bu neex on plus de un million militants qui sont dans ce pays et hors du pays Macky les gens qui parlent les vieux qui entourent Macron dañu xamul ñun on est parce que ñu ñu ñu ñu donnons des conseils à Macky Sall par rapport au troisième âge tout ce que waa troisième âge di am IPRES ak mag ñi ñun ñoo taxaw wax ab mag yi nii ngay defee parce que mag moo xam li mag soxla mag moo xam li mag soxla mag bu ñëwee li waykat bi waxoon matik na kurobat ndigg buy ruux tànk yuy jam ak xol boo xam ne dafa yëngu yooyu yëpp ñooy wax Macky Sall plan Sésame ak sécurité mu tudd ñoo ko koy conseil kon ñun on n'est pas des vieux qui croisent les bras comme ça les gens là-bas dëgg la bi nga waxee ci loolu sax ci VAS boobu noonu man moo tax may dugg ci question relax yi mooy ban sport ngay faral di pratiquer jamono yu ñu toll nii ban sport nga gën a bëgg. njoos. ah njoos. nga njoos. sport laa wax de. sport njoos du sport. fekk nit taxaw nga njoos ah, wala am dafa am terrain wala dafa am fédération de njoos. wala ñu ngi préparé njoos. nga taxaw rek ma def la nii. da ngay toog da koy def rek toog wala da nga def daw daw. xale yi xamuñu ko. Mhm. Ablaye def naa ko. ah. Ablaye Wade xam na ma bu baax. Mhm. comme ñu ngi tabaski aussi tamit suñu rédaction dañu préparé loo xamante ne bi wàllu togg la ñu indi ko lii nga xam ne nii mooy lakk gi nga xam ne dañ koo lakk ñu buggoon la ko jox nga dégusté comme yaay suñu invité képp ku fi ñëw ku ne dinañ la jox. Eh, baax na baax na baax na. ah du ma lekk yàpp. ah bon jox ma ci mburu bi. mburu bi ah. ñi sant Taraware ak Koulibaly. Hmm. laay bañ ñu ñu yóbbu ma. ci mburu tuuti tuuti rek ah voilà. baax na jërëjëf baax na doy na. doo dolli. Hmm, hmm, baax na. Ah. ñi sant Taraware laay bañ ñu yóbbu yóbbu. ina bokk doro naa fa xaani kii ka saraxa. léegi sama sama avant dernière question mooy ban musique ngay faral di déglu boo xam ne soo ko déggee rek da ngay am envie jóg. salsa wala reggaeton wala kabalo wala mbalax wala reggae wala lan. nopp yi neexul. ma ne ban musique ngay faral di fecc. boo xam ne boo ko déggee da ngay am envie yëngatu parce que tamit di nga tol foo xam ne da ngay am envie bëggal sa xol ban musique bu ko defee suñu régie ñu mën la ko préparer. xam naa ne daal ku Kouthia amel na ma ak ndax lim muy def loo man du ma def loo loolu question la loolu dinañ ci ñëw. waaw mais musique bi d' abord. waaw musique bi may man saraxule la. Mhm. Eh, musique bi may def bi may déglu benn rek moo ma neex. mooy xam nga bopp gosando inama nasoda gosando kooku xamoo boobu salsa la de waaw salsa la ah, salsa salsa ñun salsa nañu fekke ok salsa nga fekke salsa nañu fekke ah. gosando gosando gosando ok léegi euh, ñu ñëw cege wara ah cege wara ay waay salsa yu yàgg loolu yàgg na léegi ñëw ci question Kouthia bi dañu gis ne Kouthia daf lay faral di imiter ñu bëggoon a xam ba xam Kouthia daf lay tooñ wala daf lay toppandoo. day tooñ day tooñ tooñ rek lay def <laughs> ku jaa say say la dafay tooñ de toppandoowul. ah, ah xala ma noonu. Ah. dafay tooñ say say la de say bu mag la man suma téléphone bi dafay sonné guddi ak bëccëg. suma sët bi maam maam laisse nous aller battre Kouthia man léegi laisse la <laughs> dafay tooñ de. ndax mag bu dee man am sikki ku caa mu def nii mu def nii mu def <laughs> du toppandoo daa tooñ mm. waaye lépp ci démocratie ku caa c'est quelqu'un que <coughs> j'adore mm-hmm. parce que il respecte la liberté d'expression mm-hmm. te da yemale mm-hmm. waaw bu caaxaan jeexee c'est quelqu'un que j'adore bien il m'est arrivé une fois <coughs> sama benn xarit gis ma danse ko mais dans ce cas Kouthia comment il arrive à te pénétrer personnellement même tes expressions corporelles. Mm-hmm. da ko maîtriser. ma xam ne yàlla mooy def. dëgg la dëgg waaye bu bu bu bu naa ko laaj leen ma ma laajte naa ma ana waajur wa. Mm-hmm. Kouthia euh, maa ngi waxaale waa régie bi ñu préparé ma son salsa boobu kasandoo boobu comme ça ñu moom mu mën ko tëjee. wax naa ko. Mm-hmm. nee naa si jamais ma dajeeg moom Kouthia sama kan bi dama def épée ak moom. Mm-hmm. saay saay la mais yàlla baax mm-hmm. ku baax la liggéey bi muy def du tooñ day toppandoo mais man daf ma tooñ mm-hmm. ndax man saraxulee bii ma wax ni moom dafa jaxase yàlla léegi lan ngay tàggatoo la mooy nekk sa kaddu gu mujj ah ataaya ataaya waaw dina naa voilà mbay nga xel ko léegi lan moo doon sa kàddu gu mujj looy tàggatoo kàddu bu mujj mooy rassemblement national il faut que les sénégalais sa donnent la main pour travailler et seul le travail paye nous sommes dans un pays où il a pas de, de problème. Mhm. je n'ai pas de, de problème euh, euh, économique ou social. Mhm. jàmm am na. Mhm. am na dëkk yoo xam ne pour nga génn jënd mburu sax doo ko mën ndax guerre. ak attentat terroriste. loolu yëpp yàlla dimbali nañu amul. kon nañu sant yàlla. alhamdulilah te ñuy baalante ak. du tabaski ba tabaski nañu war a baalante ak saa yoo xëye war nga wax sa moromu julit baal ma ak ndax diggante tabaski korite yàlla da ciy jël bakkan te boo ko yóbbaalee aku jàmbur nga yóbbaale ina ma boro sahara haddin gi ina traawore bunu hadruhu nun saaraya hayaye o ni ngakki ko nu masa kon joxaataay bi kon régie bi ñu daal di lancer li nga xam ne mooy son salsa boobu nga xam ne moom la bëgg kon ñu dem dañuy dem donc beneen invité bi nga xam ne muy déwénati leen bokk kon ba ci